salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp mu mel ni am na mbokk mu doon laajaat ñu ñëwal ko ci xaal defoon nañ ci sax waxtaan nag xaw na yàgg moom xaal ak ay njëriñam waaye ñu fas yéene ñëwaat ci rek incha allah ndax lu bari njëriñ la te jamono ji am na ah, xam nga xaal dafa bokk ci benn gurubu meññent ndax jamono yi mag leen doon wax ne gàncax gi ak meññent benn bu ne dafa am fu mu bokk ay famille la moom famille bi mu bokk moom xaal mooy xamuñu meññeent yooyu ñu tuddee les cucurbitacées noonu la seen famille tudd mu bokk ko lu mel ni naajo lu mel ni yomb lu mel ni bref yooyu ñoo bokk ñoo bokk benn groupe gàncax am na yeneen xeet yi nga xam ne it xëy na duñ meññee fii waaye ci groupe boobu lañ bokk lañ ràññee ci groupe boobu nag lu mel ni xaal lu mel nii naajo lu mel ni beref lu mel nii yomb xeet yooyu lañ ci ràññee mooy xeetu meññeent yu am solo la ci aar wàllu xol tawati xol yi ak ci wàcce tension ak ci reesal lekk waaw ak ci aar yi ñuy tuddee cellule cellule nag mooy yi nga xam ne bu demee ba yàqu ci nit cancer mën na ko ci mën na koo dugg te lu leer nag xeetu mm, groupe groupe bi nga xam ne lim naa ko ñoom dañuy aar cellule waaw ba lu mel ni tawatu cancer yi nga mucc ci waaye noonu lañuy ñuy aaree tamit yax yi ci tawati rhumatisme xaal nag kon foofu la bokk waaye ñu wax ci xaal rek ndax it moom bari na njëriñ te xaal nag moo wax la ko tey daanaka lépp lañ ci jëfandikoo mu ñam yi soo ko xaree ñam bu xonq bi ci biir bari ndox lool doom yi am na ñuy sànni waaye dañ ko war a jëfandikoo ba si soo jëfandikoo ñam wu xonq wi ñam wu weex wi wi ci topp lu weex li kooku dañ koy sànni waaye luñ mën a jëfandikoo la ci ñu man rek ndax it moom it fereñeent kesang ca xanaa suñuy sànni xolit bu oyof ba ci kaw rek moom xaal euh, danga ciy fekk vitamine A bu doy ci wàllu ñeent yi nga cee fekk ak vitamine B vitamine C potassium ak li ñuy tuddee lycopène ak magnésium ak cuivre waaw ak li ñuy tuddee fibre yooyu yëpp da nga ko ciy fekk moom xaal te it lu bari njëriñ la di ko jëfandikoo. Eh, comme ni ma ko waxee léegi rek ci wàllu tawati xol yi lu tax muy aaree ci jàngoroy xol soo demee ci xaal ginnaaw yi nga xam ne lim naa ko ci ferñeent da nga ciy fekk leneen lu ñuy tuddee citrulline citrulline nag lu aay la ci aar xolu doomu aadama te xaal da ko am ba ba ba mu doy waaw kon nag tawati xol yi ku ci bëgg mucc del jëfandikoo xaal lu bari stress it xaal baax na ci waaw stress xaal baax na ci ak tension bu yéeg ñi amee hypertension ñi seen tension du yéeg nañ faratal xaal rek léegi mu dellu place ak ñi yéeg métti ci seen wàllu yax waaw soo demee ci xaal nag dañ ci fekk mbir mu am solo bu ñuy tuddee arginine soo delloo ci domaine pharmaceutique ci médicament yi am na garab yi nga xam ne arginine boobu moo ko composé moom lañ ko liggéeyee arginine boobu nag da koy fekk ci xaal luy njëriñam mooy dooleel góor góor gi nga xam ne awram du jub moom boobu mooy loolu mooy gàllankooram suy jëfandikoo xaal lu bari mën na dem ba loolu saafaru faal dafa baax ci ay gët day leeral bët waaw dafay aare ci tawat bi ñu tuddee cataracte dafay aar prostate nga xam ne tawati góor la lekk ko tuxaal dëgg-dëgg nga aadawoo ko mën nga mucc ci prostate bi nga xam ne moo sonal góor ñu bari ci jàngoroy prostate ndax prostate moom cër la bu ñëpp am kon nag dafay aar prostate bi ba tawat yi nga xam ne mën na koo alawtiku nga mucc ci waaye xaalit baax na ci wàllu asma ñu bari xamuñ ko waaye asmatique yi buñ ko fonkoon rek di ko jëfandikoo mun nga toog lu yàgg kirise moom duñ la daanee waaw nga saxoo xaal rek luñ digle la ci wàllu infection urinaire tamit tawat yooyu di dellu ci wàllu tuur ndox nit kiy tuur ndox muy métti wala di tàng waaw kooku dañ ciy digle xaal noonu la mën a aare cër yi nga xam ne moom la tuddee rein li ñu tuddee rein tawati rein lu ci ëpp maanaam bari na léegi ci jamono te jëfandikoo xaal aar aar na la ci lu tax xaal daf lay tuurloo ndox lu bari waaw tuur ndox boobu nag nga euh, ngay tuur ndox bu dee yaa ngi jëfandikoo rek chance la ci nga mucc ci taw terrain yi waaw comme ni muy aare wàllu prostate ndax diurétique la diurétique mooy garab garab bi nga xam ne suñ delloo ci wàllu garab yi garab yi nga xam ne boo koy naan da ngay tuur ndox lu bëri yooyu lañ tuddee diurétique xaal nag diurétique la diurétique nag mooy la ngay naan mu lay tuurloo ndox te tuur ndox bu am solo ndax jamono yi ngay tuur ndox yaa ngi éliminer yenn jàngoro yi waaye yaa ngi nettoyer sa biir yaram waaw nettoyer bi nag rein yi ci la bokk prostate ci la bokk ak cër bi ñu tuddee fois mooy res waaw kon nag soo buggee mucc ci tawati rein yi tawati prostate ak tawat bi jàpp res wala tawat yi jàpp jëfandikoo xaal waaw jëfandikoo xaal rek. waaw xaal dafay yànjal deru yaram di lekk xaal rek day fës ba ci sa deru yaram day yànj dafay dooleel soldaaru yaram moom moom xaal waaw waaye dafay dolli ci yaram bi ndox ndax xaal li ko gën a composé ndox la waaw li ci ëpp waaw jus bi mooy ndox mi rek dafay waral te booy lekk li ngay lekk di gaaw a rees te yaa ngi jëfandikoo xaal dafay dindi cholestérol bu bon xaal baax na ba ci wàllu serbo waaw neex day neexal xel jëfandikoo xaal te nag ma wax li ma leen wax ci njëlbeen moo di jëfandikoo xaal mooy nga lekk xaal waaw ñam wi ci biir ba ci ñam wu weex ba ci topp boobu mënees nañ koo jëfandikoo ndax it ferñeenti kese la te yi ma wax yépp mën na ci dara waaw suñ ci doon sànni daal eh, xëy na dara bu ci kaw rek waaye xaal lépp mënees nañ ko jëfandikoo ba ci doom yi nañ jàll sax ci doom yooyu doom yu sew yi ndax am na ñoo xam bu ñuy lekk xaal dañ koy yàbbi sànni te doom yi mën nga ko yéeyaale rek yan njëriñ moo ci nekk dafay aar xol moom doom yi waaw dafay aar xol doomu aadama dafay tax soo lekkee mu gaaw a rees li ma doon leeral léegi ci jëfandikoo xaal mu lay tuurloo ndox doom yi da koo mën te ma doon wax léegi ne tuur ndox boobu am na solo ndax boo koy def yaa ngi évacuer yenn jàngoro yi nekkoon ci yow waaye moom it noonu la aayee ci tawati reen yi jëfandikoo xaal dafay aar ay rein ba ci wàllu infection yi nga xam ne dafa dellu ci wàllu tuur ndox waaw ba ci cholestérol bi ma doon wax léegi doomi xaal doom yu sew yi ci biir moo tax may wax eh, moom it luñ digleel ndax boo koy jëfandikoo sa yaram du gaaw a baax ci wàllu estomac baax ci tàngaay yaram ak tension bu yéeg ak tawati xol yi waaw kon nag di ko yéey digle nañ ko wala nga jël ci ñaari kudd yu ndaw baxal ko ci litre ndox ba mu bax ndox moom bu seddee nga koy jël par gu mag soo ndékkee soo añee soo reeree digle nañ ko mënees nañ ko weer ba mu wowit wal ko def ko sunguf nga di ko infuser di nan wala di ko jaxase ci li ngay lekk kon nag ni ñu mën a jëfandikoo doom yu bari nañu yooyu njëriñ yëpp nag da nga koy fekk ci eh, di jëfandikoo doomi xaal nga dégg ci ne xaal kon lu mata fonk la ndax njëriñ kese moo ci ne eh, loolu nag moo doon tontu li ci laaj boobu xam naa balaa ñoo jeexal rek ma fàttali yi nga xam ne ñoo may faral di déglu man professeur Abbas garab gi nga xam ne liggéey naa ko tuddee ko la roquette waaw la nag garabu néew kattan la góor ñi nga xam ne eh, dañoo am jafe-jafe wàllu kattan ci sëy boole ceeg ñi amee problème ballonnement ak say rek yaram wuy métteeg coon ak ñoom ñëpp rek mën nañ di ko jëfandikoo ndax garab bi yooyu yëpp da koy traité ñi ko soxla nag ñi dëkkee dakaar wala foo mën a nekkee rek mën nga ma woo ci 77 786 65 19 bu ko defee foo mën a nekk rek boo wootee dañu lañ la wax nan nga def ba am ci incha allah bu dee Touba moom am na ku ñu fa nekkal mooy sëñ Moustapha Diop numéro mooy 76 383 87 34 76 383 87 34 asalaamaaleykum wa rahmatullah